kon loolu juge bi dafa yokk ci li yoon wax dafa waroon yem ret fokkal ñu yoon yemloo moom moo di que yóbbu nañ ko kër Ousmane Sonko ci yokkute boobu nag loolu dafa di loo xam ne que euh, maanaam dafa yàq atem kon book léegi faase ne atte boobu atte boobu nekkaat na tous kon dañ ko war a attewaat te léegi kon tribunalu euh, jox na ndigal tribunalu Dakar ñu bamtuwaat atte bi saytuwaat ko loolu nag li muy tekki moom moo di que ci pont bi ñuy pont bu fekkee ne que loolu gis na ko et que problème mu kayit rek la na wax loolu moom est-ce que kayit